saa su ne mi ngi ñuy jàppale moom jàppal ci waaw maa ngi leen baax a baax a bu kenn jàpp ni damaa war a wax lu particulier déedéet man toogaay bi ma fi toog li ma war mooy ànd ak di wax lu di def lu baax doon ay taalube rafetal sunu doxin ci loolu daal laa bëgg a ànd ak mbooloo mi te fu waay ne na nga xam ni ñëw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi rek ndax li ñu bëgg mooy ndamul sëriñ bi mel na ni fu waay man ne yaa ngay wax waxi sëñ bi sëñ bi nag mënuñ koo xaaj ñaar waaw kenn kerlu ba tax na moom day day sànni maa ngi ñaan ndimbal ci ñëpp waaw ñun Sëriñ Tuubaa dimbali nu ba boole xol yi fexe ba ñëpp ànd nekk benn loolu lay du ma noppi di ko di ko di ko dagaan sëriñ bi te ni may dégg te rafet naa njort ci ni loolu dinaa moo tax nanu nanu faut faire très attention nanu yaakaar lu ñëpp ñëw ku bëgg a ñëw mu ànd rek na nga xam ne ñu ngi lay tàllal loxo yàkkamte nañ la nga ñëw mu ànd loolu lu ñuy noppi di ko wax te loolu rek a nekk ci ñun amuñu yitte ci leneen lu dul liggéeyu sëriñ waaw liggéeyu sëriñ rek la ñu yitte ñu ñu fexee rek ba ñëpp xam ne mooy sëriñ Sall waaw moom moom ñëpp xam ni sëriñ bi defal na ko lu mës a defal kenn yëfam yii nga xam ni xar na ci tànk tubéyam tawte na ci naaj na wax na ci ba xoti lu leen daj ko ko ci bu ñu sañoon yëfam yi dara du ci metti suñu yitte mooy fexe ba lépp baax waaw maa ngi ñaan ñëpp nañ ma ci dimbali te jàppale ma ci sëriñ Mountakha Mbacké xalal nañu yoon dimbali nañu ba ñu dimbalee mooy ba mu jëlee seen mbéy ci yóbbu ko Touba booba la dimbali yoon woowu mënu teg nañ ci ne wax nañu ko guddi wax nañu ko bëccëg nanu rafetal ànd bi nanu rafetal doxin bi nanu nanu delloo lépp ci sunu nanu nanu moytandiku ay tere di def loo xam ni sëriñ Muntaxa day ne Touba di dégg ni ñu ngi fii di def lu dul noonu loolu de naa def rek ah. waaye mbooloo mi dañ ko dimbali ci ngor gi ñu war a ànd ak sëriñ Muntaxa ndax moom gore suñu digal moom rek la war ndax jëlee nañu foo xam ni defal nañu lu ñu mënulul suñu bopp ba tax na lépp lu koy yàq lu ñu jàpp ni da koy yàq wala day yàq wala day xajamal loolee léegi nañu fexe ba bu ñu ci kenn dégg nanu nanu nanu nanu dellu ci njàngaleem Serigne Touba nanu nanu fonk xasaay te loolu sëñ Béthio sunu sëriñ ci loolu rek lañu teg kat jàngalu nu leneen lu dul bëgg nu Serigne Saliou ñu ko ñu di ñu ko woyloo di ñu ko kañloo fu fu mu ne di ñu ko waxtaaneloo di ñu jàngaloo ay xasaay di ñu fonkloo gàmmoom ci loolu rek la ñu sëriñ Béthio tegoon teguñu ci leneen keneen ku def leneen yaa def leneen kuy def lu ñuy xarat yaa ko def waaye sëriñ Béthio def loolu am njàngaleen lu wér la woon jamono nag day soppe yëf yi euh, saa su ne euh, day day day day soppe jamono day dem ba day am lu mu laaj nit nag da dëppoo ak jamono fi ne nii li nu war mooy mooy mooy mooy defaraat toogaay nanu doon ay modèle nanu doon ay murit ñun ay murit lañu te murit buñ ko dee wax Serigne Touba kon ñun mënuloo def lu mooy yàggaleen Serigne Touba maa sant bu baax